waaw asalaamaaleykum mbokk internet bu Guédiawaye Info TV ci àdduna boo xamante ni xew-xew yu métti yi da cee bëri ak mbetteel yi am foo xamante ni dañu fay féexale suñu xel mun nga fàtte yenn jafe-jafe àdduna ak soxla yu tey da baax loolu waral tey boo leen gisee décor bi waaye itam ngeen xool li nga xamante ne mooy ambiance bi nga xamante ne moo fiy dégagé seen xel war a dem ci làmb tey loolu moo ñu fa andi stade Iba Mar ci journée boo xam ne Assane Ndiaye moo ko tëgg diggante ki nga xamante mooy Wuli 2 ak ambulance bu Thiès drapeau nga nga xamante euh, mooy Omar Bass le jeune marabout bi dëkk nga mooy ci Guédiawaye loolu moo ñu fa andi ci kanam tuuti ñu gën a xuus ci programme la ma la su eh, ma la dul duma ma dugg safara di nga dugg safara di nga mosoo am combat saafara yi ngay wax ñun ñëw ma sottee kooku. ma ñëw daanu ma da ngay wax yooru rek nga bii doo yooru. damay duy tànk yi ba fees. jàpp duma la ba lay jaabe na nga ko tal alaaji Fallu dama def yëpp ci yow laa koy. da ngay sóob yow doo dërëm laa la wax. ay dañ koy waaje comme ni ñuy waaje combat yëpp. waaw di ñaan yàlla may ma si ndam. mais mbër ñu gis Papa Yade musul daanu lan moo tax nga jël ko. daanu tamit benn yoon la. waaw mais loolu du si dara. la am rek na xam loolu rek na waaw c'est parce que ñi mag ñi dañoo bañ a bëree ak man ñi nga xamante ni samay naataangoo leen dañoo bañ a bëree ak man. kon moom waaw adversaire moom dañuy daw rek. adversaire yi moom dañuy daw rek comme moom moo am fit ba bëgg a bëre. nan ñëw rek incha allah. waaw boo ko doon ba tey ñu nekk ak course ki nga xamante ne mooy ambulance bu Thiès course ñu ngi lay nuyu avant tout. waaw ñi ngi lay fay di leen sergal di leen ñaanal gudd fan ak wér ak wér la di kontaan trop li ngeen ñu dékk micro bi. tur bi nan la. man Abdoulaye Ndiaye laa tudd man maay entraîneur Matar mbay euh, Matar euh, préparé nañ ko nuñ ko war a préparé d'autant plus euh, defal nañ ko lu ñu war a defal mbër bon amul dara luñ ko deseel daal di xaar yàlla def li gën daal. tey nga andi ko moom combat capital digganteem ak Wouly 2 ban état de nekk. Euh, Matar boo ko xoolee actuellement jaruma ci wax parce que gis nga ko moom mi ngi ci état bu baax a baax mi ngi ci forme bu baax a baax vraiment entraîné ko normalement ba pare am yaakaar ne na combat bi du yàgg quoi. waaw ah, muy bëri adversaire boo xam te ne xale dëgër li muy bëri est-ce que liggéey ngeen ci côté boobu. Euh, moom li mu xale moom li indi ñun xamuñu ko li ñu yor rek la ñu xam quoi en tout cas pare nañ pour lépp bu dee sànq ma jógee ci coach mi ne na adversaire moo gën a nekk xale Matar yow lay wax ci loolu. oh lamb moom lamb la rek loolu ay wax la rek ay adversaire bi moo gën a nekk xale adversaire bi moo gën a nekk mag affaire yi amul lamb quoi ku nekk boo entraîné boo wóolu sa bopp rek boo ñëwee war nga mën a wane preuve quoi. kon daal pare ngeen ci côté yëpp. côté yëpp xeex bëre mystique lépp pare nañu quoi. ñu ngi bu Mbour ambulance ñu ngi lay ziar. di nuyu wa Géeja wa info yëpp kay. waaw ah, mais mbër gëj na la gis ci làmb. waaw maa ngi nii xaw naa depuis bi ma daano ba léegi maa ngi door a ñëw làmb tey ji nekkon sama ruxu di entraînement war rek di wajal da xamna ne bu daano day nekkaat ci lenen quoi. bi nga juwé sa digënté ak ki nga xamante ne mooy Tyson 2 ba léegi tok xaar ah, toogaay bi dafa xawa yag lu ko waral. su toogaay bi yag na mais nekku nekkuñu woon tëdd nalaw dañoo toogoon di entraînement quoi dañoo togon tok suñu ruxu di entraînement parce que lamb da di lo xamanté ni nekkul na du du bir day xey wasit mais ñu ngi entraînement boo ñu gisee nii rek nga xam ne ñu ngi entraînement bu baax di waajal di xaar retour assurance. juste benn instant nga ñëwoon équipe Fass daal delluwaat Mbour lan moo waral nga dellu Mbour. non damaa mën a ñibbi rek parce que xaw ma loolu quoi daa am erreur bu ndaw bu ma def mooy li tax ma dem fa mais tam jàngal na ma li tax moom parce que bi ma fa jógee si laa samp sama écurie depuis 2014 ba léegi maa ngi sama écurie Mbour Géej benn défaite laa ci amagum muy contre Tyson 2. yan adversaire la lay proposé. non am na ay mbër yu ma doon wax du ma tudd turu kat mais man daal maa fi pour mbër yëpp Forza bii fi Lamine Samba nekk di ko wax na ñëw ñu bëre amul combat ak Malick Niang. ah mbër Forza ñëpp ko fi bàyyi de. non lamb mbëri ñoo ragal ay rek mais lamb du dóor rek lamb bëre la ak dóor. pare nga pour jël Forza ko. naa pour pour mbër yëpp mba rawatina forsa ak Malick Niang ku si bëgg na ñëw ñu bëre mbaa seen espoir yi fi nekk léegi ku si bëgg ma may la waral teewaay bi tey. waa teewaay bi ko waral mooy damaa gëj làmb damaa ñëw waroon a wane sama bopp en même waa kii di bëre ni général Diouf sama rakk teete bi ma nekkee igri Bombardier tey muy bëre kon sa il faut ma ñëw jàppale ko. kon gu mujj. sama kàddu gu mujj maa bu baax a baax kontaan naa làmb kaw ca non Jama Gueye sama xarit la damay wax damay waxtaan ak moom rek sama gain la. mais bis da nga bañ a tuur lëndëm. ah da nga bañ a tuur lëndëm la. non sama gain la c'est que daa am bis suba suba la bisam bi moo tax. suba daa tëgg combat suba nag si loolu lañ doon waxtaan nag. dégg naa la nga ko waaj li muy wax dara amul est-ce que daa am adversaire bu lay jëw. non non tafaleer moo wër ci dëkk bi naan dañ ko jox victoire te loolu muy wax yëpp dara amu si Jama Gueye loolu la ma doon wax ak Lamine Lutte TV loolu la muy wax nee na gëstu nañ ko xool ko mais dara amu si loolu. bu loolu weesoo foo toll. waaw maa ngi si maa ngi si rek gars yi ñu ngi si wax ay combat daal mais ñoo juboogul rek mais ñuy wax ay combat. mais ñan a bëgg nga jàpp ni nga man bëgg naa Valdo mën na ñu ñu bëre Brise Mer mën na ñu ñu bëre Amath dem ñu ñëpp sama adversaire lañ soxla naa ñu pour ñu bëre. lu waral bi tey. waaw tey teewaay bi tey lu ko waral Omar Ba suñu xarit ndax dañu amee bés da ciy sonn du ñuy jàppale moo tax tey bu amee bés dañ se war a taxaw quoi loolu tax tey ñu ñëw teewal ko tey. dëgg la. waaw mbokk internet yi ba tey ñu nekk ak le jeune promoteur mu tërëwal le promoteur de l'espoir jamaïcain ñu ngi lay ziar promoteur. delloo ziar di la nuyu di la jox sa wàccuwaay di nuyu waa Guédiawaye info di nuyu képp kuy seetaan Guédiawaye info maa ngi lay ziar di la nuyu. lan moo waral teewaay bi tey. waaw lu waral teewaay bi tey moom sunu grand sunu xarit Assane Ndiaye moo tëgg woote tëgg journée bu rëy en tant que promoteur ñu ñëw jàppale ko ci bés bi. ba pare jàngaale pour suba ndax bi tey duñ ko laal suuf si duñ ko génnee. foofu laay taxaw tuuti sax ngay waajal lu rëy suba fan nga toll. pare nañ ci lépp lépp lu ñu waroon a gars yi def nañ lépp ñu ngi xaar suba incha allahu rabi di ñaan réew mi ñaanal ñu bu subaa ñu mën ko réussir total. lamb ji jeex si jàmm commencé bisimilah rahmaani rahim jeex si alhamdulilah rabbil alamin suba laay Pythagore ñàkk jariñu grand combat bi nga tegaat si biris de mer numéro 2 ak Zal Bawal tegaat si combat boo xam ne moom la àdduna bi yëpp di xaar muy wulli ak Pato. kon waaw c'est man la maay fils de promoteur maay caatu promoteur yi moo tax su may ñëw dama war a indi lu am solo moo tax suba ma indil amateur yi lu am solo trois combats ma def ko benn jour. bu loolu am loo lu mu doon. waaw moom sama waay la dañuy déggante mbër la man promoteur la ay doomu nday lañ am na lu mu bëgg am naa lu ma bëgg si loolu la ñuy wax te incha allah rabi am nan nekk. li mu bëgg noonu laa bëgg nga ñamal nga si tuuti nag yow tam. non bu sottee rek ma ñamal la ci dañ ko bëgg waccé fi comme ay moromam baana ñi lay jaajëfal ba tay ak ñu nekk le grand champion mbay guy mu daal di mujj am ndam ci nga xam te mooy Alioune Seye Junior ñëpp gis na anam bi ko daamé mbeur ñu lay ziar ma lay delloo ziar di la bëggé lu bëri doolé di la wax ba lepp jàmm rek waaw di sante yalla bu wér nak nam na la ma ngi ni rek ma la raw dom day waaw di la bëggé lu bëri doolé ba bëgg nga ñëw sama galé seet ci ma jël ci ma inshallah dina ñëw tamit mbeuri mbëri géejawaay rek ngay jël na man la suma moy lool bëré na ma ngi nekk sama entraînement di xaar combat grand frère yi laa bëgg ñu may ma saas mënumaa jeexal samay morom na grand yi ñëw may ma saas rek ñu bëree a mais lu waral teewaay bi tey. waaw sama doomu ndey sama xarit yegsil moo war a bëree ñu bokk benn écrit muy sun grand ñoo ko di ñaan ndam ak wuril de. bi nga bëree ba léegi dégg duñ sa combat foo toll. waaw ñuy dox sama combat ñu ngi may wax ay combat. waaw mooy loolu noonu maa ngi daal maa ngi xaar daal. su mel kan ak kan. waaw comme gars yi rek grand yi ñoom maam Balla yi ay Malaw Seras yi ñooñu ñëpp bëgg naa leen. waaw buñ ma buñ mënta kii it ma xaar caat ak armée waaw. sa diggante fils de Balla. non ko daa daanu Tapha Leer da koo daan. jox nañ Tapha Youssou Ndour. Youssou Ndour sax soxlaawu ma i ah mais mbër Youssou limbal fii laa soxla man mënu ma jeexal samay morom daan naa samay morom yëpp dama bëgg grand may ma chance ma dem ci kaw. mais yaa Youssou la parce que maa laaj keroog mi noonu bëriwuma la. non du question loolu daa xam ne bu ñu bëree ma daan ko rek. loolu la maa ngi moom moom bu ñu ma daan ko xam na loolu bu baax. waaw maa lay jaajëfal. jaajëf di la bëgg le grand champion Modou Anta bu Thiès kenn dootu ko présenté champion ñu lay ziar. waaw maa ngi lay fay Thiandoum 2. lan moo waral teewaay bi tey. waaw teewaay bi gis nga rek am ñaari mbër yu war a bëre dogal benn bi ñu ñàkk benn bi mu dese grand combat bi moo tax ñu ñëw di dooleel suñu rakk Matar ñaanal ko yàlla may ko ndam. waaw ñu gis aussi bu ñu xoolee moom ambulance ki muy bëree xale la te dafa ës loo koy di lan nga gisee loolu. waaw Matar liggéey nan xam nan ko bu baax a baax a baax kon li des nag yàlla rek moom moo des dañ koy ñaanal yàlla yàlla may ko ndam mais am nañ ci yaakaar xam nañ li liggéey du pour wulli mais ne non non. mais sa diggante Amanekh lan la coow li dafa bëri trop. mooy Amanekh nee naa ko wutil promoteur man damaa sonn ci Amanekh topp na ma guddi topp na ma bëccëg bañoon naa ko nee naa ko pare naa pour bëreeg yow mais nag combat nag yi promoteur yee koy taxawal. maanaam daal solal na la pare nga pour bëreeg. solal na ma. Ah. xam nga man lii mooy problème bi booy yi dañoo xoolal mu may taxaw wax comprendre nga su bëggee bëre sama rakk a ngi nii moom xam nga dëkk mbër moo dul bëreel amul coono mu ngi mel ni tey rek ma dem naan ma jox Balla Gaye xam lool loolu yabaate la ndax lam boolewul kii lii muy def affaire yabaate la. ma ne daal mën nañu jàpp ne pare nga pour moom promoteur bu pare bu tëgg. damaa sonn su ma tàqalikoo ak moom xanaa dinaa noppalu. <laughs> ak le grand champion Bombardier waaw ñu ngi leen ziar di ziar waa Géejawaay waaw ñu ngi leen ziar bu baax Géejawaay info ñu leen di ziar bu baax. waaw boobu ba léegi gëj nañ la gis nga daal di nga nga ba nga bëri ama seen ba léegi gëj nañ la gis quoi toogaay bi yàgg na ak lëlu bi lan moo war. waaw xam nga boo soogee jógee si combat da ngay làqatu nga defar woon maa ngi ak samay mbokk ñu ngi liggéeyaat di defaraat di xoolaat euh, actuellement bon ñu ngi si liggéey bi am na yooyu proposition combat parce que combat ba la nga koy jot jël dafa war a nga liggéey ba pare donc ñu ngi woon si liggéey bi ñu ngi am ay contact ba sori nañu kon ñu ngi xaar rek incha allah combat bi taxaw. ci kaw proposition yi ñu déggoon sa diggante ku ñu mel ne Ama Baldé la ma bu jëloo ko. non dir lañ ma proposé euh, wax nañ ba wax ji daanaka tënku ñu ngi xaar promoteur bi incha allah. mën jaam ne sa revanche ak Gris Bordeaux mi ngi ci mi ngi ci yoonu sotti. waaw fi mu ne nii bu taxaw si promoteur bi la des ñaari mbir yëpp jekk nañ. leer na kon fi toll nii daal yaa ngi ci waajtaay pare nga pour di leen wax ni yàlla na nekk dem ba nekk télé bu mag a mag parce que lamb lii rek moo manqué woon mooy tey ñu médiatiser ko international ak internet bi léegi foo nekk da jot information à temps ñu leen di encouragé baax di leen ñaanal jàmm di ñaan si réew mi jàmm. sa combat MMA bi ñu doon tamit boobu fan la mu dafa aborder wala amatul. waaw boobu dama ko bëgg a pousse ba saison bi jeex xam nga saison bi daa gàtt moom ma si boole ñaari après saison prochaine jàmm yàgg si réew mi nous sommes avec euh, Jocelyne, qui est une Française, qui est venue pour découvrir la culture sénégalaise et suivre ce combat entre Rouli 2 et, Ambulance de Thiès. Bonjour. bonsoir à tous. Ravi d'être euh, là, parce que euh, j'ai l'impression de me retrouver dans les arènes. Alors, comment vous trouvez l'ambiance et la liste sénégalaise Mais écoutez, c'est extraordinaire, parce qu'il y a un côté arène, on se croirait presque revenu à l'époque de la Rome antique, et un autre côté complètement, complètement dingue, avec des gens qui descendent, qui font n'importe quoi. C'est drôle, c'est gay. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit le plus <coughs> Dans les combats, quand même. Les engagements. Parce qu'il y avait quand même certains combats avec un bon engagement physique. Hein. Les là ou bien la technicité Pardon Ce sont les là qui vous ont séduit, la bagarre ou bien la technicité Oui, voilà, tout à fait. Parce que, je veux dire, euh, il y a l'entraînement, il y a le travail,

jël na tànk bi. wulu do ambulance jàppante na ñoom ñaar. jàppante na ñaari xale yi. samedi 13 avril stade bu Mar Diop Assane na ko mu rëbbu. ambulance wulu do fàqat na ko mu bañ. amul round d'observation xaaral a na ko càllum do. ndeysaan ambulance. ambulance wulu ak wulu do jàppante na ñoom ñaar. ñaari bërekat lan. ku nekk jàpp na ngemu ambulance jàpp na benn ngemu a loxo ba di dóor. ñaari wuli du du yàgg xaadim. na ndeysaan ménagère baa ngi doon di saal ba toogul taxawul. ndeysaan xaadim xaadim bu a jeexal combat bi. a jeexal waaye du sotti. wulito bëggoon na koo sotti fu sori mu gën a ci wulito ambulance mën Mor loxo mu def 3 appuis jogaat na. combat bi neex na combat bi neex na. ay Wouly 2 amateur yi tàcc lool. très spectaculaire. Wouly 2 ambulance mesdames et messieurs. entre ambulance Wouly 2 un combat sans merci. Wouly 2 mboq nañ ko mu def 3 appuis ambulance Wouly 2. combat bi neex na Thiandoum 2. Wouly 2 ambulance mot nañ ko mu def 3 appuis moom Wouly 2 amul round d'observation. amul round d'observation ñaari bëre teg la dañuy ñaari xale yi. bëre na lu neex.

ndeysaan ay mélange moo ñëwoon ginnaaw wuli doo da koo dengeñ ndeysaan da ko jàpp daal di kenn ku nekk benn ngeen mu nga sa loxo jàpp benn ngeen mu nga jàpp sa loxo ba wuli doo ñu ngay door sa loxo gos xaadim ambulance wuli doo da ngay door ambulance wuli nga door ndeysaan ke wala nga doonu taxawul magam la ambulance ak wuli doo ambulance door nañ ko wuli doo door na toogul taxawul ndeysaan waaye ki wal toogul taxawul moom it mais xaadim bëre walul tan la xale ku ñëw ci pindum nga yem xaadim ku ñëw pindu ba nga yem ndeysaan ambulance wulu do yóbbante kalkal umul lamb xaadim mu mënu koo xóob ndeysaan star baa ngi nii ambulance wulu do jàppante rek ñoom ñaar ku nekk jàpp nga ñaari ngemb xaadim ku nekk am nga ngembu ndeysaan xaadim buñ xoolee wulu dama mel kuy récupérer bal na ko mu bañ ambulance rocc na loxo bi xaadim ambulance rocc na benn loxo ba wuli doo rocc benn loxom wule nga door si suuf xaadim ambulance ak wuli doo wule nga ñam xaadim daaw door yooyu mu door dafa bëgg ambulance bàyyi bu sew bi la jaay xaadim waaw loolu ci biir bi rek la dal abdominaux la boo entraîné di nga am problème day metti wuli ñaar gado nga nga nga ci ma bëtt ambulance Wouly 2 bëtt na mu bañ. ah mu ngi koy jéem a pataxal. ambulance Wouly 2. ñaari xale yaa ngi bëree xaadim. bëri nañu ambulance da ngay door. ku ne door na da ngay door. da ngay door ambulance da ngay door. kaawoo dina am wala du leer. Ah, plaqué na mu doole. dafa dëgër ambulance dafa entraîné. dafa am résistance. la moo tax ñu plaqué ko demul. ambulance Wouly 2 jàppante na ñoom ñaar. xaadim combat bi neex na.

Ambulance ah, nga dóor wulay nga dóor Xadim. ña ngay dóorante bëri amagul. Ambulance ak Wouly 2. Ambulance bu Thiès bëgg sa waajur doo 2 Bawol dóorante nan. ñoom ñaar ku nekk door nga. attention Kaaw Xadim ñiy xeex ci kaw. Kaaw mën na cee am de. wala Ardo Xadim. Ardo na cee am lu ne mën na cee am ceer. ndax ñaari mbër yi doon ñemante defuñu sax round d'observation. arbitre dafa suuf ñu déclenché teg ñoom ñaar kenn bëgg ci ñoom ñaar ñëpp bëgg lu metti. te jàppante bi yàgg na aussi. yàgg na metti na danoon ndengañ ambulance. Wouly 2 dafa ndengañ ambulance Thier. dafa ndengañ xa mbot day am kun Wouly vous ambulance ambulance quel combat Khadim Vous en ébullition par ces deux protagonistes et combat sans merci à travers lesquels les deux protagonistes sont ont de réaliser des techniques mais toujours ils sont solides personne ne veut perdre ce combat c'est le combat de soc au duel des amateurs Khadim numéro 2 de wax leen ko Thiatou Loum 2 ngi noonu Wouly 2 ambulance jàppante ay gaño ñoom ñaar dara amagul. mais ambulance bi may xaadim waaye ñaari mbëru wet la nag. ambulance takk na ko Wouly bañ ak Wouly 2. oh Wouly 2 daan na